la ilaha la ilaha Muhammadu Rasulullah yaay life gi mu leer ah, la ilaha la ilaha Muhammadu Rasulullah yaay gën gi mu leer ana salaamaaleykum mbokki spectateurs, yu RMB TV ñi ngi leen di nuyu bu baaxa a baax di leen di jajeufal amna ak contentement bu yaatu jëmele si yeen ñi nga xamantene euh, vous êtes les inconditionnels de la télévision leader le miroir de la banlieue la RMB TV di leen dalal si seen émission bi nga xamantene mom leen dippé balade musicale balade musicale nak comme son nom l'indique une émission spéciale bo xamantene mom leen les artistes artistes bu mënti doon daanu dem seeti la and ak yow dugg say mbokk dugg say xarit dugg say gox duñ bàyyi fenn bu ko defee rek ñu waxtaan ak yow jëm ci sa carrière waxtaan ak yow jëm ci sa musique waxtaan ak yow jëm ci lépp loo xamante ne nii moom la public bi bëgg a xam si yow tey nag nous avons le plaisir d'accueillir un artiste qu'on ne présente plus un artiste de dimension internationale artiste boo xamante ne nii mi ngi wane boppam fii si Sénégal mais aussi actuellement waa bitim réew ñoo ko bëgg a nangu suñuy loxo man di jë seen ma ma ne non non du ma ko nangu moo taxit

premier album am mi ngi ko dippee apprenti ndax carrière am mi ngi ko dooree si euh, liggéey bi ñu dippee apprenti super moo tax nag tey daanu dugg si gox yi dugg si goxaan yi dugg si si ara yi dem fépp wan leen lan mooy liggéeyu apprenti bu ko defee ñuy soog a dugg si li nga xamante ne mooy carrière musicale am bu ko defee gars yi rek ngeen dégg tey rek ngeen gis loo xamante ne mosoo leen koo gis c'est sur la RMB TV et nul part ailleurs ak DJ Senmo l'homme fort yàlla waaw waaju baax la amul kenn xaar ma yàlla waaw bi mu fi nekkee ba ni mu fi jógee ba ni mu zéro faute waaju baax la yàlla na ko may li bëgg waaw jamono jooju moom moom si sibéri la nekkoon di lang nekkoon fi apprenti fii nii Texaco Pikine yooyu waaw bantu leen Yaraax Espoir ah. kolo bantu leen Yaraax Espoir sëy naa ci la doon lang ah. ci benn patron bu ñu wax naar moom fii la doon yabee kolo bantu leen Yaraax ay ñoom grand dra sëy naa la am yaram sax meer taw fii la woon dagg mënoon a lang sawar ba pare tey am dal fii fii la daan fanaan gaa oto bi gaare fii mu toog ci biir oto bi foofu la doon commencé di woyal boppam ci biir oto bi fii guddi bu fayee gardien ba reer ba pare toog ci biir bi commencé woy mënu woon a ñàkk sàmbaram defal ku lii mu am nii yàlla na jëm kanam am ndam ci carte yonent yàlla Muhammadu Rasulullaah seen naa suñu waay la ñu xarit la ko jàppee collin bi ma see kii moom Zeyna la moom mooy yara xolabanti leen moom rek la mën moom rek la mën kaay wuy Cheikh Amar kaay wuy apparenté waaw mais d'abord ñu ngi koy remercier ci acte de reconnaissance bi mu def xam nga loolu moom lu baax la quoi mënoon naa xalaata moom ko yàlla may na ko xel mi nii jaar na fii rek vraiment ñun dañ ci ànd ak mbégte quoi parce que euh, apprenti jaar na fi doon doon apprenti doon chauffeur ba doon transporteur fii apprenti déggoo ma de jaar na fi doon apprenti ba doon fi chauffeur ba doon fi transporteur tey mu leer ni rek àddina moom ku dund rek lekk sa muur yàlla nag moo lay féetale way benn bis dama yëpp benn paa bu la xari deret lool lool lool oto ba di dem. waaw non lépp lépp lépp fii woon parce que man fii nii comme li waa ji wax sax fii fanaan naa ba tey xam nga déjà euh, peut-être euh, yàlla mooy soppi nit si li muy ne xaw mais dara du njàmbaaru kenn yàlla moo dogaloon ni man peut-être euh, damay nekk apprenti car rapide jóge fa nekk woykat xam nga kon déjà loolu. Euh, lu may sant yàlla parce que dama yàgg bëgg musique bi dama ko yàgg bëgg ñi ma xam ñëpp gis na benn waay nee na fi laa doon gaare di way si biroota bi loolu presque ñu bëri xam nañ ko loolu noonu yow est-ce que yow mën si waatal si at bi nga xamante ne moom nga njëkk a commencé lang fii si oto waa at bi ma njëkk a commencé lang fii presque soo dee xool ay quatre-vingt-cinq la ay quatre-vingt-cinq Um, si laa si laa commencé lang fii parce que man dama nekkoon si camion yi ndax suma papa chauffeur la woon xam nga mais après si laa ñëwee si car rapide yi di lang si benn chauffeur bu ñuy wax Moustapha Senghor ak Jata Sarr ak Adama Gueye xam nga mais Moustapha Senghor moom laa njëkk a lang fii muy daw yarax Kolobanti la ñu bëri xam nañ ko xam nga avec des barbes blancs ñu bëri xam nañ ko ni mu nekkoon ku compliqué ku compliqué pour nga ànd ak moom day compliqué mais amoon nañ cër boo xam ne si moom yàlla defoon na suñuy rab juboon ba nga xam ne man si moom rek laa doon liggéey daawul jël apprenti yu bëri waaw moom moom ma gën a marqué sax si arrêt bi parce que moom moo ma miinal arrêt bi waaw arrêt Texaco xam nga <laughs> yaraax Colobane Tilène boo doon dem boo doon yàpp lan nga doon wax Tilène ah Tilène Tilène nga nga dem Sam rang fa eh. xam dem ni yaraax Colobane Tilène nga dem Sam ni Pikini yara, pikina, na piki, piki, piki, piki, piki. Pate wode. Non, duma pate. Li moy sama vie. billahi Xam nga leg asay fan nga ñu yobul. Wa non, il faut ñu dem buntu pikine. Mu nuy sama gaay fa après ñu kon. Waaw, Sandika, ça me rappelle beaucoup de choses. Dama rappeler bi ma nekké apprenti car rapide. Dan taxaw fi di yeb. Dan fekk suñu ben grand bu tuddu ngañ. Waaw, ndaysan. Dina ma rappeler aussi bindan dem di petit mango. Di chap mango. Waaw, ndax xalé pikine boo gis jaar na si càpp mango waaw dan fa dem di ndékki ji aussi di jappalé pay yi suñu la gudusul parce que man so xolé aduna li ma ci gëna neex moy euh, souvenir aduna souvenir moom ci gëna neex parce que nit ci soo fàttee souvenir rek da ngay ñak lu bëri da ngay ñak repère waaw so xolé syndicat fini nii daan fi taxaw di yàpp waaw ndaysan mu nek lu doyar waaw di yàpp yarax ko labanti leen di xëccoo client yi muy metti boobu lang demewul nii léegi boy seen affaire bi neex na mais jamono boobu da nga daan nekk fii di xëccoo client waaw muy metti ngay xeex moom la gaañaan boobu wax léegi xam nga kon sandika ça rappel beaucoup de choses rappelle nous aussi nawetaan yi équipe daaru daagu daan xam nga cosaan xam nga suñ mësaan dem stade wala bu avant ñu dem stade dañuy jaar syndicat càpp mango yóbbaale ko stade si nawetaan yi xam nga loo xam ne moo doon moo nekkoon suñu dessert la nekk ci stade bi ko tout ça xam nga waaw moo tax euh, syndicat dafa bokk si euh, patrimoine Pikine jaa ngi nii jumaa waaw duma jumaa jaa ngi nii jumaa ji ak bi waa xam nga euh, ñu bari xam nañ ko hôpital bi Seydou Nourou Tall moo nekk nare si roxo bi waaw mais kër gi ngay gis ni fii moo nekkoon suñu kër. ah fii nii kër gi. waaw moo Matar man fii laa yaroo. waaw fii laa yaroo quoi parce que sama benn papa. Uh-huh. Ah, suma tante. Uh-huh. bi nga xam suma magu yaay la man moo nampal, man suma mère bi ma jur nampaluma mais suma magu yaay moo nampal nàmpal kër gi nii. beneen gàlle la woon dañ ko mujjee jaay léegi xam nga mooy kër pap Matar xam nga kër saraxu lay nekk xam nga fi mooy daaru daal fii Ndongolo. Yves Baboy eh, papu Diomber Ndiaga job xam nga y en a plein de gens yo xamni fi fii fi fii soso ay eh, ñom eh, ñom Papa ndjay Thiou Papa ndjay Thiou koñ be mooy sen koñ xam nga kii Baboy xam nga fi moy koñu koñu Pape Diomber xam nga fi moy koñu Pape Diomber waaw ñëpp daal daanan daanan daanalu Pikine yëpp. daanalu Pikine yi jaar nañ fii. Ah, grand bii ngay gis nii xool da koy xaw a filmé. Ah. du ma ko sax jël danga ah. koy sàcc. grand bii ngay gis nii. kii mooy grand John. kii su ma taxoon fii. dina am lu bëri lu mu wax si man. mais xam naa ne yooyu yëpp ay temps la yoo xam ni dañuy liggéey si liggéey la nekk. xam naa su gisee image yi. na ko rappelé lu bëri. grand bii dafa ma daan encouragé si aar lu bëri. bilaay di ma may xaalis. Mm-hmm. di moo woo di ma wax booy woyal ma. te bobu ma ngi si karapi di nekkon suma tante fi suma tante nday ñang mm-hmm. yalla na ko sunu borom xare àjjana firdausi wa legi man man dama dama bëgg xam jamono joju concurrence bi fi si mm-hmm. mbiru aar bi ndax jamono joju dafa mel jamono jooju ay Ivignan ay Nongolo gaay commencé di génn amul won concurrence uh-huh. mama bobu parce que aar melul won nonu mm-hmm. ñepp ben lan da danoo nekkon ben bloc bokku do nek ay doomu nday xam nga nekk Pikine euh déjà peut-être euh, xam nga du meuna ñak parce que nit mën na def benn concurrence mais du nekk concurrence sax day bëgg yow li nga li nga am rek moom moom lay bëgg am xam nga mais dootul du nekk concurrence te li nga am moom lay bëgg a am moo yokk jom jooju ba jeunesse su Pikine boobu noonu mooy ñi ma la wax ndongoloo Yves Niang gaa yëpp ba ku si nekk rek am nga sa nga tey jii nekk artiste parce que bëgg boobu li nga bëggoon noonu gis ko sa morom mu am ko nga bëgg ko di ko ñafe loolu tey moo indi ku si nekk mën a tekki si loolu ma sax nga may laaj paas. donc mi noonu Samba ginnaaw ba ñu jógee Texaco jaar nañu syndicat dugg daaru actuellement ñi ngi nekk fii nga xamante ne moom mooy buntu Pikine ànd ak suñu invité du jour li mooy balade musicale balade musicale c'est du jamais vu du li ngeen di gis fenn c'est identique c'est une émission. Euh, unique au monde et que yaakaar naa ne mbir la boo xamante ne di ngeen dina leen neex donc mi ngi noonu ñuy def mooy àndaat ak sunu artiste dem seet ay xaritam yi nga xamante ne ñoom la doon àndandool fii di liggéeyandool lii nga xamante ne moom mooy apprenti car rapide bu ko defee nag gars ngeen xam ne nit warta fàtte démb et que aussi tey nous allons balader avec notre artiste d'une autre manière li ngeen mës a gis fenn mooy am fii sur la RMB TV gars yi let's go ñu dem àndaat lépp. wallaay wallaay dëgg la ah, lii lépp. bon. lii suñu lépp. nga ne la alxuraanu karim. waaw waaw ñun la waa Bounde Pikine. Uh-huh. waa kii suñu papa la suñu lépp la. waa kii mooy Seyna waaw waaw. lan lan ngeen ma mën a nettali si moom jamono ju muy ne di débuté. waaw kii lang na fi daf na fi lépp. waaw dañuy bëggee rek mooy lool Fall yow tur bi naka la. Ousmane la Ousmane Sène Ousmane Sène mu mel nii ne ñu ñëwee rek da nga noo gàttandu. vraiment dalal sawaay loolu yaakaar naa ne dafay wane nu muy dundee ak yéen. ak aussi ay jamono la na mu doon dundee ak yéen. ndax moom laa mën a wax. dëgg la parce que dañ suñu xol moo sedd. parce que suñu xoolee gis lu ñu fàttalikoo rek automatiquement dañuy am lu ñu yëg suñu yaram. loo xamante ne nii dañuy neex quoi grand bii nongaañ. ki amul problème nekkoon na fi nekkoon nañu ay temps ba mu génne ñu son apparenté. gars yi di ci bëggee ñu ñëpp naan apparenté yi apparenté yi. parce que apparenté ay nit lañu. oui oui surtout loolu. apparenté yi boo leen fekkee ñu nekk seen liggéey mm. da ngay jàpp ne ñoom daal ay kii lañ daal ay faq man lañ wala ay buujumaan demee alors que demeewul noonu parce que ci la ñuy yëngu ci la ñuy daan seen doole ci la ñuy taralee seen i ak seen i soxna yaa ngi dégg grand bi bi mu ci nekkee zéro faute. Ah. nekk nañ ci am na ñoo xam ne nii booy xamuñu ko en cent pour cent mais bi ñu déggee automatiquement ñu moom rek dañoo daw ñëw parce que dañ koy xam quoi ndax aduna euh, nii la. aduna nii la mu fi nekkee ak léegi amuñu benn lu luñ koy nemmeeku lu lu ñaaw daal ndax chaque jour rafet grand bu baax grand bu ñàkk ki ñaan grand boo xam ne dañ koy ñaanal à chaque fois lépp lu mu séntu rek yàlla na suñu borom yombalal mu nekk loo xamante ne day gën si moom parce que ñu dañoo kontaan si moom suñu tonton mi ngi nii ak dari yu tey yi ñëpp a ànd kontaan parce que parce que même génération la. oui xam nga kan ki moy le maestro. oui Ndiol. Ndiol waaw ñëpp ci Ndiol lañ ko xam. oui kii mooy démb mooy tey. kii mooy buntu Pikine. waaw dama leer ki mo tax ki fekk na lepp aja euh, la sant. di leen ah. di leen jox seen ah. di leen dalal. Eh, euh, bu baax la wax du lu mu taxaw nii moo tax ñu koy wax. ndax bu fi defoon lu ñaaw mbaa mu jëfe ko fii ah bu ñëwee sax duñ ko faale. parce que euh, fii buntu Pikine ñëpp xam nañ ko. waaw soo soo gisee nag ñu bëri naan buntu Pikine buntu Pikine buntu ñu bëri dañu yaakaaroon ne buntu Pikine bu njëkk ah. ay bàndee fi nekkoon ak i loolu ay affaire mais fii buntu Pikine ñu baax ñoo fi nekk te moom mu ngi nii loolu leer la. parce que bu fekkoon ñu bon yoo fi nekk. ah ba moom tey jii du mënoon na xaaram xaaral ma romb leen rek dem feneen. mu def daal ñun kontaan nañ ci. waaw dëgg yàlla. leen remercier. waaw jaajëf waaw jaajëf waay. ah kan kii ah moom mooy kan salaamaaleykum. maa ngi lay siyaar papa. tur bi la. man la Ahmed Fall. Ahmed yow mu mel ni ne euh, sa waay sa ami d'enfance la ay jamono yi ngeen nekkee fii di lang lang ma mën a seddeel si moom. Euh, ni ma koy seddeel moom bi muy lang xale bu yaru la te ku bëggoon métier la ndax danaan lang di wayantu te loolu mu daan wayantu tey wane na boobu exemple ci moom parce que dama ko da koo bëggoon daa bëggoon aar bi bon yàlla jàppale ko ci ba mu dem ba génn ci album xale bu yaru la damay ñaanal ko yàlla yàlla defal avenir am. parce que ku baax la te wane na ko te bëgg na apprenti te apprenti taxul nga bon métier bi apprenti taxul nga bon dugg ci oto taxul nga bon. lay lay lay lay lay lay Maxtaar lay lay lay lay lay Madina lay. ni संग देमना सुन संग देमना शरीफ हुसैन लाई संग यऊ वेत्रतेनो ni लाई दा आ वेत्रनेयो ay ay ay संग देमना सुन संग देमना शरीफ हुसैन लाई संग यऊ वेत्रतेनो ah witel baladem ay ay ay bisu alarba la dem ni wuy ji borom kërëg yu ndaw jooy nay mag jooy na bilay ban ko dencee ancien apprenti rapide laa woon nek si def si parcours bu yag ñu bëri ci lan ma xamé déjà ma nek si yalla def ma si nekkee ma dem ba nek musicien. nek chanteur compositeur. xam nga kon euh, déjà Seydina apprenti boobu il faut muy nek chaque jour parce que am ñu bëri ñu may wax des fois Seydina pilote sax ay animateur wala kenn kuma invité ma ni Seydina apprenti ma non non nek nekkatoo apprenti ma ko si chaque jour apprenti là parce que apprenti c'est la vie moy nit ki chaque jour c'est un apprenti de la vie parce que la vie c'est un apprentissage waaw chaque jour rek am na looy jàng ci àdduna kon tur boobu en philosophe dafay ñëwaat ci tamit aussi ci sama yëg-yëgu démb ba léegi day des ci man parce que ku fàtte sa démb rek xam nga da ngay waaru sa yoon day xaw a doy waaw parce que ni waroo fàtte démb te tamit euh, Seydina apprenti dama defone ben morceau bo xamni dafa tuddu Seydina app kii apprenti du say say rendre ci hommage sama mbok apprenti lolu mo gëna indi turu Seydina apprenti bi ndax man sama premier album yusundur Ndour produire julli lu fekk maa ngi nekkoon ci car rapide yi di lang mhm. euh, xamante woon ak sama benn xarit bu tudd Cheikh Dieng benn jarbaatam bu ñuy wax Babacar taxoon ñu xamante parce que kooku benn jour dafa ñëw mhm. fekk ma may joué centre culturel français si mhm. groupe yu ndaw yi ma nekkoon parce que maa si benn groupe bu ndaw bu nekkoon pikin ñu tudd doole jàpp ñu yóbbu ko Las si fami Kundul ñoom Goro Kundul ñoom Jaraaf gaay yi xam nga ñoom Jëmb Kundul léegi bi ñu ko yóbbee foofu Euh, waa HLM Las Palmas vraiment ñu accueillir ñu. man ma doon lang tamit si benn car boo xam ne foofu la nekkoon PA yi xam nga Ousmane Ndiaye euh, car rapide boobu ma doon lang noonu. Mhm. foofu su ma mosaan lang ba guddi. damay wàcc dem répété gars yi su ma amee tamit concert damay tëdd tamit euh, damay kii damay liggéey ba ngoon gi ma dem sangu changé dem joué ji concert bi ñëwaat si oto bi waaw benn jour ma def ko mhm. dem wàcc changé dem liggéey dem joué ji centre culturel français ak Michael Souma. amoon ay concert yu ñu doon def foofu ay jamono. Mm. léegi bi ma joué ba pare ma xëy la lendemain mm, di di kii di liggéey. benn waay boo xam ne mi ngoon ci concert bi. Babacar mu yàpp mu yéeg sama oto. Mm-hmm. ba si yàgg rek di ma xool ba si yàgg mu ne meew sa dama la xàmmee de. ma ne ko man. ma ne ma si yow doo chanteur. ma ne ko non man apprenti la mu ne ma non yow chanteur nga parce que démb ki ma dégg nii muy woy ak baat bi ma dégg nii ngay wax nii. Mm. non yow la quoi. comme ça ma ma koy tooñ noonu rek waaj ni ma non yow la mais dama la bëgg booleeg sama benn tonton. Mm. ma ne ah, mooy sama benn tonton boo xam ni Pape Omar Ngom gorom la quoi bi nekk si Youssou mu tudd Cheikh Dieng. Mm-hmm. ma koy euh, nuy à passage di ko ziar suma jooju di ko bëggee bu baax. nuyu tamit sama beneen xarit Michien boo xam ne aussi jàppale na bu baax muy Saliou Guèye ma koy ziar. Mm-hmm. léegi si biir loolu après si la ma gaan wax joxoñ ma seen kër ni ma dangay ñëw foofu ma ñëw foofu le lendemain bi ma wàccee si liggéey bi léegi si laa commencé xam ama kooku relation su ma liggéey deux jours si tey dem répété ak moom deux jours ba yàlla def après si la ñuy def kasitu Gallo Cello Gallo Cello waaw mooy morceau bi ñuy wax ay ay go near waaw voix boobu man maa ko defoon si albumu Gallo Cello bi ma ko defee baaw yàlla def c'est la amee production. am relation ak Youssou Ndour. xam parce que dama ko def rek léegi après euh, Bouba Ndour nima yow mom bul sonu le lendemain après si la ma woo téléphone nima ma ñewal ñëwal wuyu Youssou Ndour trois jours rek la ko def mu wo ma ni ma ñëwal wuyu Youssou Ndour ma ñëw gis Youssou dama ko gis rek le premier jour mu nuy ma rek nima noyo dama lay produire. je toujours ni comme ça. waaw si la ma defalee premier album ñu tudde ko. Seydi lu nu wax man Youssou Ndour moom ma joxoon non Seydi lu nu wax mooy Seydi ñu bëri Seydi lan ma doon wax. Ah, am na ñoo xam waaw Seydi mooy Seydi si français mooy euh, lu nu wax. lu nu wax waaw. ah Seydi. waaw Seydi. S E D léegi lu nu wax boobu moo moo moo indi moo indi Seydi lu nu wax. ok waaw séddi lu nu wax xam nga en pronostic bi Sénégal. Mm-hmm. duñ ma a ñenn ñi duñ mën a wax euh, séddi. Mm-hmm. mais ñuy wax Seydi. ndax say turu Seydina bi quoi. léegi mais. bima ma no noonu ba génne album bobu suy dom ñu bëri xamoon nañ ko. légui euh, ma bëggat ñu ñu ñu taxaw ma bëggat ñu taxaw tuti ci sa rencontre ak Youssou Ndour. bobu non c'était en quelle année. c'était en 98. nga 98. waaw la rencontré won ak Youssou Ndour. non la ñëwé rek wacc rek. tek suma affaire rek dam sol sama jaxas ñëw bi gaay ma séné sa doon rétane té bobu non yaa ngi woon. yaa ngi woon tamit di liggéey ci si super yi. dama wacc ni rek suma mère wax ma rek ma dem nonu ak. tëni bi noonu. tëni njaxasu apprenti bi dem noonu. et pourtant et pourtant nag euh, singalu Gallo Thiele boobu jamono jooju dafa defoon it. dafa defoon it mais yow man taxul woon tamit nga bàyyi liggéeyu apprenti bi. woon ma bàyyi liggéeyu apprenti bi. mais dama ko def. Hmm. presque ay trois jours rek. ñoom si leen ma. Ah, si vous contacté si vous me mm-hmm. contacté tellement que dafa suis un plaisir parce que je ngi bëgg j'avais pas le moyen pour maquette parce que mais le gëm rek chance de def euh, participer cet album boobu mm-hmm. euh, si que euh, que kër yi permettre de découvrir moi, de me découvrir léegi Youssou Ndour euh, si la ma bi mu dégloo fépp si la ma si si la waxee bi wuntur booy bi fa ñëwoo ko et après ma ñëw bi ma ñëwee nag si la man amul sa audition dafa man ni yow dama lay produire vraiment mu nekk automatiquement mu nekk bu baax na ko si grand bu humble bu oyof mhm. boo xam ni peut-être soo ko xamul à cent cent dugganteeg moom doo mën a xam kan mooy genre boobu mais je pense que nekk na nit koo xam ni le plus humble des artistes au mm. Sénégal oyof moom si moom la fekk baax. li may def rek mooy ma bàyyi ko sama sama yaay ji nga xamante ne mooy yaayu Seydina Diop apprenti ma bàyyi ko mu nuyoog mbokki téléspectateurs yu RMB TV balaa nuy xuus ak moom si waxtaan yaay boobu maa ngi lay siyaar. maa ngi lay fay sama doom. Mm-hmm. ma sant yàlla julli ci yonent bi. Mm-hmm. maa ngi ñaanal Seydina. Mm-hmm. di leen ñaanal yéen ñëpp ndaw yi. yal na leen yàlla jàppale. waa ne jaboot. sa doom. doo ko gërëm danga koy ñaanal Seydi nag gërëm naa ko bu mënatuma ko gërëm dama koy ñaanal ndax bi mu jotee buntu néeg li mag ñi naan jot buntu néeg bi mu solee dàllu papaam mu jot ko ba léegi sonn ma man dama nekkoon ci ay coono parce que man dama teel girim dugg ci ay coono jaboot papaam génn àdduna mu laxasaayu nag jàppale ma nangootul ma sonn ci benn boor dama daan jaay mu ñew ni ma yaay bul jaayati may liggey mun ma bayyi liggey bi legi lepp man la war bi ma ko waxee nag ba legi dara dañu ci bi ma waxee ba legi dara dañu ci ma nga bitim rew de waane yalla ak yonent ci ay rakam ak man rek ñoko ko ak soxnam su bax si bayyi ma ak soxnaam nag mu yor ma mm-hmm. ma nangul ma mar nangul ma defal ko dara mm-hmm. même jànq bu ñëwul boo ko ma ne ma bu ma ko nee ma defal ko dara day bañ du nangu ma laal dara fonk ma nag def ma waajuram di ma toggal neex may lekk di ma xeli kafe toog nag ci këram demul dikkul fonk ma fonk ay rakki jëkkëram Seydi nag li ma la ci wax rek man daal mënatuma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla yeggaleel ko yaakaar naa nag aar bala ñuy lalli basang yi moom dina jël wàllam mm-hmm. ndax liggéey na ko ci man liggéey na ko ci ay rakkam mm-hmm. yàlla na ko yàlla fay xolam jërëjëf après léegi mu bëggoon nu ñëw ëmp nag si euh, moom ni mu duggee si musique ndaxte nag bu nu nee Seydina Diop apprenti. tey nga gis journée yëpp ñu ngi xëy delluwaat fi nga xamante ne moom fa la nekkoon muy ay Pikine. Ah, euh, boo xoolee jaar nañu fu bëree bëri. Mhm. ñëpp même seedal la ñu wax ku ah, baax la woon ku yaru la woon. Ah, dem nañ fépp fu mu mës a jaar ñëpp dem nañ fa. Mhm. Euh, lépp nekk ay seede yu rafet. Mhm. jamono jooju sa doom ba muy. Eh, nek ndaw duggu si apprenti. waaw jeki geni si ba si musique lan nga si nga la nga si meuna delu ci si. ci genné nak yalla da ko booleeg nit ku bax man ngone yassine mar Youssou Ndour. mi nga xamni lako ala ko ta waxon nak niko nag. ni te bëgg nga ñëpp am. ci xolam bu rafet ak mbaaxam. Ndour yalla na gudd fan. yalla na ko fay xolam. mu gis ko nak bëgg ko. gisul yaayam gisuma man gisul baayam gisuma man gisul baayam jàppale ko génneel ko kaset tubaar macha allah kaset booba cartonné la mu ci am luy wër sëgam lépp mu jot ko ci mbaaxug Youssou Ndour yàlla def na nag ñoo gisante waaye fu ma toll maa ngi koy wax lu baax Youssou Ndour yàlla na yàlla guddal fanam te yemalewu ko ci Seydina kese Youssou Ndour moos sooy wax ci moom su yeboo nga wax ndànk parce que ñëppay wax ci moom billaay Youssou Ndour a baax catuwuma ko nag waane yàlla na ko yàlla guddal fanam Youssou yàlla na yàlla guddal fanam lan nga nu mën a seedeel ci sa jëkkër Seydina Diop apprenti waaw maa ngi leen di nuyu ginnaaw bu ma sante yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant tamit sama boroom kër. Mm. ak sama goro bi génn nii di sama yaay boroom kër. Mm-hmm. di sama yaay tamit. Mm-hmm. maa ngi leen di sant bu baax. Mm-hmm. li nga ma laaj naa même bu ma mënu wax sax dinaa jéem a wax. parce que papi bëgg na ma fonk na ma. teg na ma sama place. respecté na ma. bu génnee lu mu gis mu xam ne jekk na ci man mu jënd indi. papi fonk na njaboot bëgg na yaayam bëgg na ay rakkam. bëgg sama famille surtout sama famille bu gisee sama yaay wala sama pap day mel ni ñoom ñoo ko jur si biiram dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla làq fa yàq yeggul ci barki Muhammad lépp lu muy ut maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko ko yàlla defal. mais dama bëgg rek nu dellusiwaat un peu si sa carrière actuellement euh, yaa ngi ci ñaata album wala ak aussi ñaata production single. daaw def naa trois albums. premier album mi ngi tudd Seydi nu nu wax boobu la ma waa Jololi produire moo nekk léegi Prince Art bu Youssou Ndour ma def ma après ma def album apprenti waaw moo indi turu Seydina apprenti mm. après ma def album décroché def kook sama benn xarit bu tudd Saliou Guèye mm. ma ko si euh, nuyu à di ko remercier bu baax waaw boobu mooy sama trois album après def naa ay single nag def naa ay marqué sama xol xam defna def saralang xam nga def naa aussi euh, nabiyu bi ni ngay deg ni bokk naa ay tamit album yu bëri parce que bokk naa si albumu Papa ndjay waaw sama xarit bobu ma koy ziar borom america di nuy bu baax borom AOI e, AOI e. waaw doomu ndey ndongolo parce que mom la ndongolo wayon di ko wax soo bëggee demal ci mom Papa ndjay man beug na la xam nga suma xarit la maa ngi koy nuyu borom États-Unis maa ngi koy ziar bu baax. bokk naa si album tamit Bakkan Seck. nawet bi album bi bu njëkk a génne man maa ko woy xam nga def naa tamit bokk naa si album Gallo Thiolo bi bi indi sama sama ouverture si musique xam nga si musique professionnelle ma dugg si biir bagage yi. def naa tamit bokk naa si album Youssou Ndour Birima xam nga bokk naa si kër yi ñoo def kër yi premier morceau bi ñoo def kër yi ak affaire yëpp xam nga. bokk naa def naa tamit ak duo ak euh, Adja Fall. Adja Ngéwél gi yëngu na. Hmm. xam nga ay affaire yu bëri daal def naa ko ay ay participation yoo xam bokk naa ko ci ay album. Hmm. def naa ko ay featuring yu bëri def naa ay sept featuring soo dee xool. yu bëree bëri woy naag aussi tamit ay yeneen chanteurs yoo xam ñoo ngi extérieur. xam nga ñoo xam def naa ñoom ay featuring. y en a de choses yoo xam def naa ko daal. ok donc mi ngi noonu xam naa ne actuellement dina am ñu bëree bëri ñoo xamante ne dinañ ne ah ndekete diw la. ah ndekete diw moo ne nii. loolu yëpp di sa dem toog Belgique euh, quoi nga nekk si musique di si def lu dara jarul macha allah lu jéggi dayo lu neex lu rafet ah nu euh, jékki-jékki à un moment donné nga bàyyi fi musique bi dem extérieur toog fa lu waral loolu. waaw loolu tombe na ak tamit yàlla def ma am contrat parce que bi may dem bitim réew dama fa rek nii xam nga hasardement nii quoi yàlla dafa def ma am contrat dem bitim réew bi ma demee bitim réew aussi ma gis xam ne moo gën a nooy fii xam nga parce que fii musique bi dangay daw di sonn amoo moyen parce que li gën a métti mooy artiste bu siiw te amoo moyen xam nga day metti parce que dama lay expliquer ben anecdote boo xam ni dama mësa dem concert Aline Bender mhm. euh, garage guedjaway bu HLM bima jëw ba paré nit ñi top ma ni pour ma signer orthographe affaire yi xam nga di ma mhm. mais ma ngi xol fuma jaar pour mëna xol ben benn bu libre rek pour mu mën si dugg si kanam rek mëna yox su dem xam nga xam nga loolu dafa xaw metti artiste xam nga yaangi siiw te moyen mhm xam nga ay affaire yu bëri yo xamni dund na ko ak sama yeneen morom artiste yo xamni ni dem ci ñom xam nga may nuy aussi passage fallu Dieng di sunu grand bu baax bo xamni vraiment jappal na mu lu si musique ndax amna ben morso morceau bo xamni defal na single bu tuddu hommage à Serif Ousseynou Lay di ci way Serif Ousseynou Lay sunu sang bobu yalla na yalla yok leeram eh, fallu single bobu mo defoon lepp mo ñew fekk ma studio ñew japp si frais frais studio yi même que vidéo bi moo fay vidéo bi pour ñu def ko moo koy nuyu di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko jàppale si musique bi ndax nit ku baax la te puis xol bu rafet la yore di nuyu tamit sama beneen xarit wax marqué na ma dama daan dem soirée tout le temps mu may yaatal hmm. su ma ñëwul sax daf may woo ni ma booy foo nekk hmm. muy góor gi Njaay waaw góor gi Njaay kooku maa ngi koy bégee hmm. di ko ñaanal aussi gaynde bu baax ngi noonu te puis nit la koo xam ni nit ku simple la te ku yaatu la ndax vraiment artiste nekk di galère ci musique nga koy jàppale sa moroomu artiste di ko secondé chaque jour ak chaîne ni mu mel ni mu xatee ko si yaatal xam nga te bokkul si groupe bi su ñëwee jël fa la mu am kooku amoon loo koy faye moo tax góor gi Ndiaye bi ko sant bi rek mooy problème parce que dafa bëgg ceeb sama copain la mais daa bëgg ceeb waaw kooku maa ngi koy béggee sama xarit boobu maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko ñaanal yàlla jàppale ko moom tamit si musique bi borom tëngëj waaw maa ngi koy ziar parce que lépp suñu borom la mom moy def ay mbiram te diko matal lolou mo gën tax ma tok Belgique léegi ba léegi ni may def navette suma ma Belgique quelques moments quelques mois après retourner ñoo Sénégal exploiter aussi sama musique pour sama rew tamit ñu gën ma gissat parce que ba léegi ma ngi ci musique bi te suma métier la te duma ko mësa a suma ñëw sama rew lima am kas yalla def ma jël ko bitim réew tamit naa ko defat ci musique bi def clip def single xam nga su ma mënee def album ma def album su ma mënee tëgg ay soirée ma tëgg ay soirée continuer parce que métier la mooy métier la foo mën a nekk rek après da nga koy mën a exploiter xam nga ba léegi routine boobu laay def parce que aussi des fois musique bi Sénégal fii dafa metti gars yi dañuy galère di dund affaire yu metti léegi soo xoolee situation bi nga am beneen opportunité bitim réew mm. mais soo toogee tuuti da ngay obligé retourner waat dem ñëwaat fii ressourcé wu exploiter sa musique gars yi gën la gisaat xam nga nga nekkaat si loolu rek moo tax euh, xam nga mm. ma may may déplacé wu des fois du ma mën a toog sax pour def promotion ah, xam nga dinaa def benn affaire mm. mais du ma mën a toog pour def promotion bi carrément parce que damay profité waale pour retourner waat fële parce que am na affaire yu ma fay xaar ma nekkaat fa tuuti après retourner waat ñëw loolu la daal donc mi euh, ngi noonu mi noonu Seydina Diop apprenti euh, yaakaar naa ne on a beau parler de sa carrière euh, vraiment dugg nañu bu baax a baax si Seydina Diop mais dama bëgg ñu def benn transition bu ndaw dem seeti ki nga xamante ne kooku yaakaar naa ne kenn la si yow muy ki produire ce dernier single bi nga xamante ne am na ay prix am na aussi succès bu doy waar euh, actuellement si Sénégal ndaxte nag télé boo taal ñu ngi koy jàpp di ko seetaan mu bëgg ñu def benn transition bu ndaw ñu dem Euh, Setan interview bi nga xamante ne jot ko séq ak mom bu ko defee ñu ñëwaat soog waxtaan ci Nabi bi nga xamante ne actuellement mi ngi def taba rajo ñu dem. asalaamaaleykum euh, wa RMB. Euh, ñu ngi leen di jiar di jiar sen téléspectateur yëpp ñi nga xam ñu ngi leen di suivre ñëpp. di leen bëggee di leen wax la man ma ngi tuddu Bass. je suis le PDG de Pic Sound Records je suis ingénieur en même temps et musicien du groupe Euh, sous le nom de Master Biatan Probe en tant que guitariste aussi et leader lead vocal. yéemaan di leen ziar. donc mi ngi noonu loolu olof Ndiaye di wax naan tungu ne du teew ñuy nataal loolu moo tax bëgguma leen ko woon présenté dama leen a bëggoon a bàyyi mu présenté boppam ki mooy Bass Peak Sound Record di ndaanaan boo xamante ne nii mi ngi accompagne ay artistes un peu partout si Sénégal ba si bitim réew di jàmbaar vraiment di ko xamante ni mi ngi représenté banlieue di représenté Sénégal di représenté ñëpp euh, Bas ma bëggol ñu ñëw wax ci artiste bi nga xamantene mo ñu fi tax ñëw tay muy euh ki di Seydina Diop euh yeen sédé nga ma mën a Seydina Diop avant tout. voilà bon Seydina artiste la bo xamantene bon euh dañuy dañuy am euh, contenté di mëna wax ci mom ndax c'est un artiste bo xam bon c'est un pétri de talent. c'est normal c'est un ancien il fait partie de l'ancienne école. Euh, ci ndaanaan yi ci réew mi ci la bokk ci ñi nga par exemple euh, dañoo représenté woon le Sénégal euh, partout par rapport à leur talent il a eu à travailler avec pas mal de maisons de production xam ko liggéey ak euh, tey label bu mel ne Djololi wala Préfart ça veut dire que parce que ñu ils ne prennent pas n'importe qui donc ça veut dire que Sidna c'est quelqu'un qui, xamante franchement parler bëgg na li muy def mën na ko bëgg na mais vu son parcours fi mu d'apprenti car rapide à un chanteur international donc ça veut dire que ça résume tout donc moi, un artiste qui par exemple la production musicale surtout au Sénégal Nous avons par exemple choses trop trop trop trop trop trop ñu ma mais il y a beaucoup de musique par c'est en quelque sorte à c'est des musiques que tu peux l'écouter un mois après c'est fini ça montrer que suñu musique la manière dont il se limite pour que des artistes qui tournent qui dem ci ay loolu yëpp tey par dafa am euh, ay am am loo xamante ne tey par ay njeexital ak loo xamante ne moom moo ko wundu Seydina nag nekk kenn koo xamante ne mu ngi foofu quoi ci dimension ndax bi mu ñëwee tey man j'attendais que mu defoon son mbalax wala benn affaire def kii ne ma dama bëgg a woy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw loolu dara dama ci ban rythme mu expliqué ma ne ma nag affaire bi euh, waxtaan ceeg ay nit euh, maa ngi ci doon waxtaan ak tubaab yi sax ne lan laa ko lan laa a def woon ci reggae laa ko woon mais man daal bëgg ma ko def reggae Je ne ko bon lii am na reggae mais y a de l'afro dedans donc il faut que nous ñu comment on va faire ba réaliser ce ce ce tube là. Nous gis sommes ba mu génnee ba mu génnee tono parce que aussi tono weesuwul euh, single wala aussi clip boo xamante ne télé boo taal fekk ko est-ce que xaaroon un succès boobu. si si xaaroon nañ ko franchement parle xaaroon nañ ko parce que comme je l'ai dit, si tu travailles avec un artiste multidimensionnel qui peut poser sur n'importe quel style de musique di liggéey musique moo ko moom moo ko jëlee fii yóbbu ko fi mu ne mu fay musique di liggéey di koo xamante par exemple fekkee na démb fekkee tey di prévoir le futur parce que les artistes c'est eux qui proposent donc tey un artiste de cette envergure là buy def xam na fan la jëm te tam si ñun tam quand on travaille on tâtonne pas su ñuy liggéey ci benn projet on discute surtout bu jaree mais il faut qu'on arrive à faire des trucs yoo xam day tolloog nit ki dimension day nit ki ci donc ça c'était prévisible que ce son là son par exemple dafay dafay dafay franchement parler tonneau bi mu def sax rëy na lool mais peut-être bu nekkoon Sénégal tout ce moment là donne gëna tax gëna def gën a def bruit. voilà ba gën a def promotion bi surtout. ndax tay son bi sax amana fi muy yegg lepp sëy naa mënu fa dem ndax newu fi. voilà c'est ça je pense que né du du du du du du effet de surprise. ouais tey euh, moom ni nga ko waxé morceau bi. doon lo xamante ni euh dara dara dara waru len see surprise parce que aussi liggéey bi dafa jaar yoon ku déglu son bi xam ne vraiment c'est bien travaillé mais ñu toll à un moment donné ñu ne musique bi dañ ko nominer si Raya Music Award loolu tamit est-ce que loolu tamit xaaroon ngeen ko aussi. Wa nomination nag moom leneen la. parce que euh, ça motive. ba pare wane nit ki dafay encourager. déjà man je euh, félicite l'initiateur de ce projet là bo xamantene bon sama amna naa beneen artiste daw bo xamne mo moo meilleur artiste religieux ko xam maay liggéey ak moom te ci processus lool lañ nekkoon que je pense que nit ki lepp lu muy def def ci soxla na ci waaw goor soxla na ci waaw goor c'est pour cela que ñuy def des réflexions et tout te par exemple y a beaucoup d'artistes yo xamantene ñu ngi de la diaspora ils font des trucs personne ne le reconnaît suñu mbokk yi ñun les sénégalais d'abord ñu xam ne te par exemple c'est c'est facile de critiquer et d'écouter son gars sur YouTube ou sur Facebook ou fenen fenen qui envoie ma et tout mais ça ça n'encourage pas les artistes le studio il était par exemple pour pour pour ñu monter ko c'est des millions te nit ki pour nous travailler ci un projet il paye de l'argent non seulement pour pour travailler avec d'autres musiciens par exemple bu def le truc il y a le grand Cheikh Bien bi nga il a fait les guitares De fait ak à kenen keneen ñu toog nous waxtaan qui affaire yi les ci fait ci tout ça équipe boobu liko wër yëpp yëpp mais c'est c'est de la thune tu les payes par exemple responsable responsables c'est des responsables d'intérêt professionnel ci loolu moom moy senum xey donc tay il faut que nit ñi di gëna suivre sen sen artistes mais di len encourager en achetant leurs albums buñu nekké ci ay jongante ñuy jog di len voter c'est ça le patriotisme. Bass Peak Sound record yaakaar naa ne Sénégal xam nañ ko adina bàyyi nañ ko xel mi ngi def lu doy doy war si domaine am euh, Bass c'était vraiment un plaisir de vous recevoir te yaakaar naa ne li nga jot wax ci sama invité tay loolu noonu lépp rafet lu may def rek moy ma bàyyi nga tàggu ak mbokki téléspectateurs yi waaye xam naa ne nag du fi yam ndaxte daanu ñëwaat beneen yoon incha allah jëm si yow sa liggéey incha allah. mais mais mais maa ngi leen di ziaraat di wax ne mbégte la tamit aussi ñun tam ñu dalal leen fii ci biir Big Sound mbégte la tam aussi ñuy def témoignage ci ce grand artiste la mm. euh, qui est ki ki qui est waaw dinaa Diop loolu ñun dañ ciy am fierté ndax bu dul dara man sama sama xarit la. voilà te yàlla mooy def boole ay nit xamante mu nekk ku baax ku humble. Mm. voilà di wax ne xam naa ne li ci kanam mooy gën a doy waar. Mm. incha allah gars yi nañ ko xaar ci yeneen faset dans l'avenir lan nga ñuy promettre sa diggante ak moom. ça bu ñu génnee mu nek quelque chose de tabaré quelque chose de professionnel quelque chose de mature. oui ça man je je fonctionne sur ça té mom ci loolu la nek loolu tax ñu mëna far. voilà di leen bëggee nak di leen bëggee yeen wa RMB. di gis ne di leen wax ni ñu ngi gis seen liggéey. mu nek liggéey bu liggéey bu am solo. trop di leen wax ni affaire yi dara to bala rek. gëm ci li nga nek nekk ji vous êtes des professionnels xam ni ngeen organiser parce que am jo joo bu ñu ñëwoon mën nañ la dëppale caméra do, doo wax. Mm-hmm. mais tey am na fenn foo xam ne tu te ndax xam nga ne ñooñu kat franchement dañuy nekk ci loo xamante ne lii euh, ñu ngi ci yoon wi donc je vous encourage di wax ñu ngi leen di ziar di leen bëggee bu wér a wér a wér jaajëf guys donc yaakaar naa ne ñoo ko seetaanandoo Bass borom Peak Sound studio di naan boo xamante ne yaakaar naa Sénégal yëpp ñu ngi koy découvrir actuellement ak aussi ñu ngi koy commencé di xam bu baax a baax ndaxte mi ngi def ay mbir yu doy doy war ñu gis ne moom nga ànd liggéey ak moom si morceau bi nga xamante ne nii moom la Sénégal gi yëpp di béggee waaw mu di Nabiou ma bëggoon nga dikkal ma tuuti sa relation ak euh, Bass euh, après nga ñëwal ma un peu si morceau boobu naka ngeen def ba liggéey ko. waaw Bass moom waa ju baax la. depuis mooy li ma yor si musique musique il faut que sa xol yaatu. ba pare nga am xol bu rafet. ba pare am ful la ba pare dëggu. Bass qualité yooyu la boole. xam nga jeune la xam nga chaque jour dama koy tooñ dama koy wax naa la tuuti mais yow su yow morom nga. parce que ay qualité yu mu yoré mm. ma gis ko ci mom mm. mu nek qualité importance moy dëggu na am xol bu rafet té li def bolé wu ci caaxaan xam nga motax vraiment mom mm. dama koy nuyu au passage di la bi cap euh, mon frère mom euh, xamante avant may ñew Sénégal mm-hmm. da nan digënté parce que sama ben dom la ko joxone pour muy liggéey ak mom mais après ci bir lolu ci lan xamanté mais chaque jour dañuy waxtaan mais xolal sa way il faut que ñu def dara xam nga mat nekkoon nag foofu aussi di préparer single boobu di composer paroles yi di ko des fois mais bi Sénégal léegi mu ne ma non mu amul xaar faut ñu affaire affaire quoi ma proposé ko bi ñu affaire bi ñu liggéey ko bu am importance moom mu liggéey si am importance xam la ko def sax daf ma ni parce que bëgg la ma quoi mais vraiment di liggéey morceau bi parce que man chaque jour damay bëgg lu différent xam nga te li ma ko proposé ni ko man lu différent laa bëgg parce que musique créative la doo xool li nit def rek nga def ko da ngay créer xool déglu ni ah man lii laa war a def parce que yow sa bopp te yàlla dafa la créer pour yow def si yow art pour ngay mën a joxale créatif boobu kon nag il faut nga gëm loolu xam ne yow artiste nga waroo toppandoo waroo xool rek kii dafa def benn affaire nga def ko déedéet da ngay toog inspiré wu mhm. créer loo xam ni kenn mosu ko euh, mën na ko créer mais mhm. day différent da nga xam ne lii am na tuuti xam nga routine boo xam ne yow def nga ko si pour mën a def sacrifice mais nit def dara nga def ko nii loolu c'est pas importance du am valeur carrément. xam nga mais nag bi ma ko waxee loolu après moom si lay ñafe ñu si liggéey. di si liggéey di si liggéey di si liggéey ba am euh, liñ si am nii ñu am ko si. xam nga xool ñu woo Cheikh Dieng. Mm-hmm. mu dégloo si ñëw bi mu ñëwee suma xarit ba ma koy ziar. ñu ñëwee déglu ko vraiment yokk si tamit moom touche am xam nga vraiment bi nu ko defee ñu def ko def vidéo bi mu génn. suñu borom vraiment def si ngëneel mais nag ki nu woy kooku soo ko dee woy muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga war a toog concentré wu hmm. créer xool parce que kooku du ku ndaw te ku ko woy am dara waaw ndax bi nu ko woyee man bi ma ko woyee man comme ni ma woyee woy bi loo ko mën a woy woy woy woy wo nil na te soo ko woyee di nga xam ne woy nga ko te bi ma ko woyee xam naa ne woy naa ko parce que morceau boobu single boobu dafa vraiment def na ay affaire yu bëri xam nga te yàlla def na ma am si prix léegi si loolu noonu si laa bëgg a ñëw morceau bi nga toog fële xalaat ko nga ñëw àndi si ak euh, ku graaw ku mel ni bas mais est-ce que lu ma laajoon Bass moom laa lay laajal moom mooy est-ce que yow xaaroon nga succès bi succès bi morceau bi am télé yi di ko teg en même temps nga ñëwaat nu nu nominé la si Raaya Musique Award xam maanaam international bi ñëpp di la bàyyi xel actuellement loolu est-ce que nag morceau bi ba nga koy liggéey est-ce que xaaroon nga si loolu. bon am na si loo xam ne xaaruma ko woon. Hmm. waaw parce que nomination yooyu yëpp xaaruma ko si woon. li ma si amoon mooy yéene bi. Hmm. mooy Seydina Mohamed dama koy woy waaw am naa yéene wooy ko parce que tudde naa ko doom bi ma amee yéene boobu yàlla mottil na ma yéene bi ma am si ay surprise mm. parce que ku ko woy mu teral la moom moom moo mët géer li woykat yi di wax uh-huh. yonent bi moo mët géer firndeel na ma ko si morceau bi waaw su dëggoo mu dëggu xooloo si dara utoo si buzz utoo si dara danga ko def naturellement ndax ko mën a woy woy woon nil na te ñun ay woykat lan kon balaa ñuy woy keneen moom la ñuy woy pour mën a confirmer la pour suñu suba mu mën a nice mais bi ñu ko defee moom teral nañu parce que teral bi mooy ñu tànn la si mm. say mbooloo nga ak say nawle yu bëri yoo xam mën nañ prix la ay millions de personnes ñu ne la yow tànnan la def la meilleur chanteur de la diaspora raaye awat Sénégal loolu sant la te loolu rek man doy na ma mm-hmm. ndax loolu rek firndeel na ma ni ma man mii may mm-hmm. xarit suñu borom soo ma sigilee rek waaw wala nga tagg ma rek mm-hmm. sunu borom dalay dalay bégal te sunu borom foofu bégal na ma mm-hmm. ndax euh, defal na ma loo xam ne peut-être mm-hmm. yàgg naa si musique bi mu su ma am loolu parce que on se dit la vérité lan mooy projet bi nga xamante ne moom ngay moom moom ngay dig sénégalais yi nga xamante ne ñoo ngi toog actuellement di la seetaan waaw projet yi mais nag euh, am na loo xam ne aussi il faut ma defaat ko mooy apprenti waaw morceau apprenti bëgg naa ko renouveler waat xam nga mm. bu ngeen te et puis sax naa leen ko joxaale ngeen ci ko def ko jingal ci émission bi waaw waaw dina si jàll incha allah dina si jàll ko am na ñu ma ko jot a liggéeyeen mm. xam nga ko xam nga si beneen facette boo xam ne bokkuloon ni ma ko tegee woon pour ngeen ko mën a jàllale pour nit ñi tamit préparer single boobu mën na am vidéo génn xam nga may préparer yeneen affaire aussi yeneen morceau yoo xam bëgg naa ko booleeg yooyu mm. mu nekk album mais pour l'instant euh, Sénégal il faut que ñu bëna a xam ni single du question que manque de moyens wala dara mais marché bi démé non parce que rey def album def ci ay millions soko ko génnee bul comprendre gars yi am na ñoo xam duñ ko tek am na ñoo xam ni plein de choses yo xam da ci nek xam nga sinon lan ben rek ngay mëna a un producteur un vrai producteur mu jappalé la financer ci affaire bi def ay tournéem xam nga mën si récupérer li mu def ci album bi su fekkee yow seul yaay def sa liggéey su fekkee Europe la amul problème mais fii nii yow yaay jëlee fale indi def si musique bi. xam nga léegi li ngay mën a def mooy def single def vidéo mm-hmm. nit ñi di la gisaat ngay def sa affaire affaire yi su gënee yaatu nga def sa album yooyu yëpp maa ngi koy euh, préparé. mais ah, mais pourquoi pas un album international.

xëj na am na leen lu fa am loo xam ne amul fii mais lépp fii la ndax ku sañoon lépp looy yëngu rek da nga koy yëngoo fa nga dëkk xam nga fee da ngay dem rek voyager am loo yóbbu jox leen après nga ñëwaat nekk si xam nga moo tax fii moom ñoo ngi fii te dinañ góorgóorlu di si ñafe mais aussi tamit euh, sunu suñu toogee gisuñu nu rek xam na ni ñun dañoo déplacé pour dem rooti après ñëw indi daal oui kon boog mi noonu producteurs yi <laughs> yaakaar naa ne génneel naa leen Seydina Diop ndax xam naa ñu bari ñoo ngi jàppoon ne Seydina est-ce que actuellement mi ngi Sénégal kon Seydina Diop ñibbisi na ne producteurs yi jog te xam ne c'est un vrai produit un pur produit boo xamante ne ni gëm naa ne ku si def sa xaalis doo ko rëcc parce que nag euh, Sénégal ñoom ñoo ko bëgg te aussi ñoo ko fonk te lu muy def mën na ko euh, Seydina lu may def mooy ma bàyyi la nga tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ngi doon toog actuellement dinu nu seetaan ndaxte RMB TV les suivi de partout euh, ma bàyyi la rek xanaa nga tàggatoo. wax aussi say dernier mot bu ko defee rek ñu ngi noonu daal mbokki téléspectateur. waaw may nuyu sama mbokk apprenti yi. comme loolu la wax rek di nuyu sama mbokk apprenti yëpp chauffeurs yi coxeurs yi chauffeur taxi yi chauffeur tata yi. ba si ber te partout ñëpp ma leen di ziar parce que ñëpp ay chauffeur lan xam nga ma leen di nuyu di leen ziar. Mm-hmm. di leen bikk di wax nag apprenti yi. Ah. ak chauffeur yi xaar leen seen morceau mi ngi ñëwaat. pour ngeen bége si. Uh-huh. ñu gën leen rendre hommage parce que apprenti du saay-saay du bandi salté apprenti métier la. Uh-huh. métier bu noble la. métier chauffeur bu lu noble la. bu njëkk ba chauffeur. Uh-huh. soo ko masaan gis mu ñëw si dëkk dañ koy teral def ko comme buur. mu sol lu rafet. xam nga sol ay ray bandam nicement nekk ku civilisé mm. doon ko nawoon mais léegi suñu gisee benn changement mm. loolu loolu war nañ mën a bàyyiloo xel nit ñi pour aussi tamit ñu changé waat affaire bi gën ko moderniser mm. xam ni métier oto métier la xam ma ñu gën see góorgóorlu te gars yi tamit xaar leen single bi mi ngi ñëw te dama bëgg tamit sax def benn soirée boo xam soirée de gala chauffeur yi sol lu rafet sol seen i costume wala seen i xam nga ñaari morceau loolu moom moom dina garaaw di ànd ak ànd ak soxna yi ànd ak soxna yi ñu ñëw ñu bëggee fecc xam nga def suñu soirée gala lépp dara du manqué parce que c'est important ndax nit ki aussi liggéey boo gis am na dimanche tey puis man maay seen chanteur man maay seen artiste xam nga je fier d'être un artiste des chauffeurs et des apprentis parce que moo doon suma métier bi nga xam ni suma métier faar la woon lii ma def lépp suñu borom moo ko tudd sumay mbir ma koy def xam nga loolu tamit gars yi nañ ko xaar xaaraalay apprenti du saay saay du bandi salté incha allah lépp ngi ñëw ak beneen yeneen affaire yoo xam ni mi ngi ñëw si kanam di la bu baax a baax di bëgge banlieue bi di wax RMB ndombo wan jajeuf dafa leer donc ni ngi ñi ngi leen di gërëmaat bu baax mbokki téléspectateurs yi nga xamantene yeen a ngi togon di ñu sétane à travers la télévision leader le miroir de la banlieue la RMB TV di leen jajeufal way aussi di gërëm sama invité parce que vraiment on a passé une journée extraordinaire parce que euh, permettre nañu même ñun aussi ñu découvrir métier apprenti <laughs> rawatina chauffeur yi di nuyu syndicalistes yi yeeg ñëpp ñun fa fekkon vraiment ñoom ñepp daal vraiment apprécier liguey bi ñuy gërëm aussi wa kër gi ñi nga xamantene aussi moy soxna si euh, mooy aussi euh, sa yaay mi nga xamante ne gis nañu gis nañu aussi témoignage yi voilà ñu gis loolu voilà surtout loolu. yàlla jàppale ko bu baax a baax parce que vraiment ku liggéey rek war na am jaajëf. waaw ma koy remercier di ko wax euh, big up madame Diop. waaw Matigna jaajëf. maa ngi bu baax. donc mi noonu kon acca jaajëf ñun aussi ñu ngi lay delloo jaajëf bi di la gërëm euh, si dinaa Diop apprenti di gërëm sama caméraman bi nga xamante ne jàmbaar la euh, mu di euh, Bàcc ma Massamba xam ngeen ne que sax que à chaque fois boo leen di gis seen émission bi di balade musicale lu si bëri di ngeen dégg ma di ko tudd muy jàmbaar di gërëm ki ma àndaloon mu di Momo Junior ak aussi ki nga xamante ne moom mooy Malick ak ñëpp ñu nga xamante ne vraiment jàpp nañu si émission bi ak technicien. RMB TV muy Asi muy euh, Ibrahima suñu directeur ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ngi fay liggéey Kulim Dioum moo taxit euh, gars yi daal ñu ngi leen di naan euh, la RMB TV la télévision leader mais aussi balade musicale di leen leen wan leneen loo xamante ne nii mësta am kon gars yi rendez-vous prochainement ak beneen daanaan jaa ngeen jëf. Mamadou Nabil.